xoolal la Papa Ngom li def xoolal. Babacar mbaa xeex du amaat fii Babacar. ah ëpp nañoo xeex de. ah xeex bi daal fi lañ ko bàyyi ko am seen loon. ah doona waar de lii ma gis. ñoom la ñu fay de. bu dakkul dana xeex dana amaat de. nañ ko bàyyeeg ñoom ñaar. Ah, moo gën a wóor. ñoom ñaar la fay. des activités diggante Ocas du service bu ñu tardé pare na moom. Mamadou daal nee pare naa bu yàgg. Modou nag moom pareegul. mu ngay sangoo ko raxasu. di sotte ko. yëfi séeréer la ko def di dem maa ngaa ko daan def soox ngay soox di diri tànk ba rek de jànni ko ko mu jàll de cey mut lu léegi léegi la la xëccoo place wala waa ndeysaan Talla Ndiaye ñu ngi leen di passé visite tey le dimanche 28 juillet 2019 et eh, heure bii daal lu fi amal seen béréw nag Bombardier 28 juillet 2018 jël couronne roi des arènes bi tey le premier génnam mu koy jomanteeg Modou Lo boo xam ne daanoon na ko 2014 kon Talla Ndiaye lii combat ah ndeysaan laa ko ndeysaan mu mel ni ñaari mbër yaa ngoogu ci géew bi léegi waxoon naa leen ne wàllu teen la billaay boo ñëwee ci pind bi ngay taxaw waaye bu leen ko fàtte te koo jaawale yéen ñi di drapeau yi sunu ngeen di bëree artiste international toj na fu ne ci àddina bi ci way tax tey Moustapha Diop dañoo ko njukkal kon ne ñu ku ñuy suivre ci Leewtoo TV à travers le monde du ñu fàtte kenn sunu soppe yi waaye ana Babacar Diop waa ndeysaan borom mouvement bi jàppal ma jàpp doomu ndeyu Karim Wade borom oto yi ca New York Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sama maire commune maître Pape Sène waa ndeysaan président comité sénégal de l'homme sama xarit sama mag faw ma nuyu ko mooy maire commune Ndondol muy nuyu waa Ndondol waa ak yaay sama dëkk nuyu naa ñëpp ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm ni ngay seet mbër ya laa ilaha illallah ee Talla Ndiaye Talla Ndiaye ñaari mbër yaa ngoog ñu leen di seet wala ñuy wax ak ñoom Malick ay arbitre bari jàmm laa ko tudde Malick Ngom ama seena wane ginaaw Modou Lo ngeen jàkkaarlool Modou ama kabar na bu kenn jaawale lii sama yaay Penda Diawara nuyu naa la ca Sacré Cœur arño suuf leneen la ñu ngay lewaatoo der moo loo ndax da ngay njeexaat fa farab den doola fa sab loxo wala ama danga ko naan lu sax wala kunti diw ko da koy fay tay nañu yëm ni yàgg te bàyyi ko xool mu muy andil ñaara ngi ñaari bërekat ku ne na jàkk sa morom Modou pied gauche fausse maanaam garde normal ama pied droit fausse garde ñuy lewaatoo Modou Lo mi ngi fiy mujj dafay jëlee defet waaw Balla Gaye dee ko fi daan moom Modou bëri na Léopold ñaari yoon ak Lac de am fi ndam benn ak Balla Gaye mu ñàkk Eumeu Sène bëri fi benn gagné fi la gagné roi des arènes ñu ngi nii ci Leewtoo TV Talla Ndiaye la nii ak Babacar mais Talla jàppal na yàlla ji taw na dugub ji day sax gerte gi sax nawetub jàmm Talla du mën a ñàkk mbottu yi ngoog jalaar yi génn naar bët yi dox gunuur yi naaw lépp ci nawet taala waaw waaw daje leen yéen a ngi déglante de roi ak rok parcelle Pikine roi ak rok rok ak roi rok des parcelles Assainies le roi des arènes ana waa Pikine seen doom a ngi marché syndicat marché seng marché Savenel du Pikine la nekkam bi yoon bi bi yoon Modou Lo dafa mel dafa tey. waa tey daa baax nag. waaw bi yoon dafa taamu nañ ko ci ndox waaye xam nga ni ci nit la gënam. tey de mi ngi ne tekk Babacar. tekk gën a wóor ba gis fa nga war a dem nga doog faat. loolooy affaire bi Babacar. am na ci. muy itam ngi ne tekk boo nee tekk tekki wan na aw yoon fa ngay aw loxo jógagul ku dalagul dara xewagul. ama tey accéléré de ama accéléré boo xoolee Modou dafa xaw a dër Modou xaw a taxaw ca a taxaw ca kaw yee Modou Lo bu Parcelles Assainies unité 1 ba 26 ñu ngay gëddante de ñu ngay de ama xob na ko ana Ibou Laye nga ca ginaaw toog ana Jibi Seck la njang ñu ngi ca ginnaaw toog waxoon naa leen kon noonu naa leen teen la. bu arbitre suuf soufflé geen di wàcc ca ginnaaw xaar yéen du mën a ñàkk dafa ñu ngi nuyu naa ko ca mariste doomu ndeyu Waly Ballago Seck dafa ñu ngi moom doomi Pikine la man ngi koy nuyu Talla waaye kenn du Serigne Ndiour tey li ma sol ci Real Madrid moom fa génne Talla Talla xam nga ne li ma jox rafet na non original la nga sol. ca bitiki Madrid la ko jëlee. original nga sol baba. kenn du Serigne Ndiour maa ngi koy nuyu ca Italie. fii ci yow ko la ko boole Lamine la jox rivel pour man mu jox ma Real sama équipe bu mag ba. waroon na maa jox da ngay am yow la Juve. looy waxati waaw waxtuma dara baba. Ah, voilà kon del fàttaliku. damaa fàtte àndal ak sa xel. Ah, del xelu day ànd ak sa xel. waaye ñaar ñi daal ñu nga ca. ci Leewtoo TV dara xewagul de dégluwante rek samp leen tànk yi ñeme jaaga waaw suul tànk yi jam-jam yi jóg waa États-Unis nuyu nañ waa France bàyyi saal ca Paris ee eh, waa Italie ñoom Fatma Fall ñoom Ndongo Fall ñoom Mbacke Kebe ca Italie ana waa Norvège ñoom da baax maa ngi leen waa Dubaay maa ngi leen di nuyu door na ko góos am fayu ji jotu ko Modou génn am na ko Modou da ko ñam góos ah loxo yaa ngay commencé jóg de droit ak góos yaa ngay rombante de loolu mbaam saxee moytu leen de tamp kuñ ci dóor na xob na ko de ferme la pataake ga seere am na ku wax taxi ca ginnaaw de bu zone la bu noir taxi bi fu mu jógee parcelle wala Pikine Abdou Ba xumay sot de mooy manager u Ama Baldé taxi de man li ma ci xamoon buy daw Ndakaaru yëpp client ah ay code la de waa Pikine lañu de xam nga làmb daam soxlu nag lamb faw soxlu am ci ah nañ ko déggoo kon ah gisoo fi taxi xanaa taxi ma lee fi nekkoon mu loolu li mu ngémboo daa kii saar ba noir ëmma sol ngeen mu weex moom ëppoon ngeen presse waxante ngeen léegi nag jëflante leen moo ci des de waa fi ne nii daal moom fi mu nekk nii lay day jeex Moustapha Diop wàccoon ak yéen ndax fay na leen bëre leen xam naa nag ku daanu moom dana metti ci yow Balla Gaye de noonu na ma combat am dana metti lay doon noonu na ma Modou xeexam moo gën a jub waaye ama seen der la ñaar ñëpp la yërëm. waa dañoo jar a yërëm di. waaw loolu la wax. ah roi des arènes nga yor ko di ci génn sa génn bu njëkk di dajeeg koo xam ne danaa daanoon Talla Ndiaye loolu daa dis boobu yan mun la bi muy mujj fii dafa la fi jëlee. boo xoolee seen taxawaay moo tax combat Eumeu boo dafay faral moo tax bëre bi mën a gaaw. ñaari mbër yaa nga ca de waa parcelle de ñu ngi ne teg di déglu seetaan Pikine itam ñu ngi ne teg di déglu seetaan xanaa lamb ji waree su ko way ana Samba yaa ne ngaan doole laale baaxu góor la nañu laale. waaw waaw ëmma ngay gëdd de Modou jam góos ëmma daa bëgg a dem de waaye Modou ba góos lay jam Modou ba góos la koy jam di dox ëmma laaw na Modou ee doori ee Talla Ndiaye Modou Lo doon eh, ba Talla Ndiaye Talla Ndiaye mënta jóg Eumeu mënta jóg hee eh, Talla Ndiaye ay Modou Lo xoolal supporter yi eh, waaye yéen lu mu def nii Talla Ndiaye épercule droite la ko dóor mu dëpp oh Eumeu Sène. yëkkati nañu ko le yëkkati nañu Eumeu Sène Boy Niang ñëw na di ko yëkkati. ñu ngi koy yëg Modou Lo looloo defati nii Modou Lo looloo defati. yéeme oh, mu dëpp. ah sa doy na waar. Oh, da koo dóor i pël këtu mu këpp. eh Lamine Seck kaay. Oh. maa ngi lay fay moo ami et mon frère Babacar. tey li am si jàngat. Babacar bett na ma bettuma. lu tax bett la. ndax dama liir kartu làmb gi ci sànq bi ñu léewtoo maa ngi toog ak Zalba ma ne ko. Zalba mu ne maa ma ne ko tey mu ne maa ma ne ko. observé. santé classé dina am waaye Eumeu Sène lii ma gis mu jiital saa yi bu dóoree laaw laawam yooyu muy def bu ko defee dalul nee naa ko su ko waaj di remise muy toog moo am ci nit la koo xam ne nee ko muut loo. mooy photographe bu mag bi ndax Modou Lo ci say bët lay bëre donc mbër la moo xam ne saay boo bëree moom ni ko Balla Gaye di def nga koy def ndax saay boo ko mayee mu xalaat xamal na ñàkk nga làmb jooju du mbër mooy jox cër du mbër mooy bàyyi muy xalaat du mbër mooy guddeel te Eumeu Sène am na foo xam ne toll na fa excès andiwul woon maa mën. waaw parce que xam bu ma ko jàngatee. combat bi Eumeu Sène te début à. boo xoolee dafa mel ni combat day gagné rek ba boo xoolee daal man ci biir bëri bi loolu bi mu ñëwee ci géew bi nag daa mel ni fekk fi loolu. ma ne gis nga Babacar muy sa doom muy sa rak muy jigéen muy keneen cër dafa am solo. dafa am solo saay boo joxul nit cër bi mu bi nga ko war a jox. da ngay tëdd. te mën nañ laa daan ba jéggi la. doo xam sax ne daan nañ la. te yow comme yaa waxoon ne. ni ma daane kuy jàng bëri lañ koy daane. ñu xalaat kon yaa rectifié sa bopp. ñu xalaat boo ñëwee. diggante leneen nga ñëw mu def loolu gën taal mais lii mooy lii mooy bête noire bête noire ci làmb dafa am Eumeu seen def na ko waa Géejawaay daan na leen kee def na ko kële kee def mais kii moom tey moom mën nañoo kitaabu ne Modou Lo loolu am na kontaan naa ci yow boo ñu sifir ci Leewtoo TV ñu nga commencé woon ak yéen ci samedi ji ci arène nationale teere si stade Léopold Sédar Senghor doomu yaay ñilaan ji drapeau Youssou Ndour lañ doon bëre le roi di mbalax kan moo ko gagné Modou Lo mooy roi des arènes tey actuellement 28 juillet 2019 yàlla def na ko lool ci kaw kan la ko jëlee Eumeu seen mi nekkoon roi des arènes léegi loolu fi amoon combat bi nag taala li ma ci mën a wax mooy la ma wax rek mooy Modou Lo pied gauche lay jiital muy garde normal Eumeu Sène fausse garde la muy pied droit léegi Modou bi ñëwee dafa tëj bëre bi xañ Eumeu Eumeu lépp Eumeu nag wuti pexe amu ko mu laaw te bu laawee droitu Modou day day libre pour mën ko dora uppercut boo xoolee dafa laaw moo def rotation génn am ko ñaari uppercut Eumeu dëpp kon jël bi mu ko daan kenn du ne setul kenn du ne leerul kon di courage Eumeu Sène félicitation Modou Lo lamb moom nii la rek waaye taala kenn du Serigne Ndiour borom Real Madrid moo ko jënd ca butiku Real ba yónnee ma ko xaalis su bari la ci def Serigne Ndiour maa ngi lay bëggee waa ndeysaan numéro 10 la ma tëkkal taa la jëlal lii lii daa jar a wax xani fay waa da ciy bokk voilà numéro diis yaa ngi nii les 10 de l'arène ah, wax nga dëgg daa rëy